allahuma inni audu bika min charri ma amiltu wa min charri ma lam amal allahuma inni audu bika min charri ma amiltu wa min charri ma lam amal xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuskare ñeel na waa ñi xam ne day nettali ay wax jublu ca reetaan loo nit te di ca fen tuskare ñeel na ko tuskare ñeel na ko xadis bi at-Tirmidi génnee na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waylun lilladi yuxaddisu bilxaddiisi li yudxika bihi alqawma fa yakdib waylun la waylun la axrajahu tirmidi waxtu julli yi suba waxtu na tàbbi 5h25 juróomi waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom tisbaar 13h33 benn waxtu bu tegal fanweeri simili ak ñett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 soo ko fiitee gànnaar wala Saloum téeméeri kilomètre dina yokkal benn simili jant bi dana fenk 6 heures 40 juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili di soo 19 heures 30 juróom ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin